monsieur le ministre Pape vous nous gis que la ndax avons procès Ousmane Sonko à est-ce que nga nous que na permettre ci économie bu daan ñuy perte journée. ah dette économie bu daanu Sénégal l'économie sénégalaise se porte très bien mais dans un contexte certes de crise bu

su ñu dans ci situation de faiblesse au niveau du peuple mais très souvent si demee ba nga une situation waxtaan faiblesse, moo s'arrange toujours pour trouver meilleur arrangement donc il faut que les yi waru ne nangu instrumentaliser opinion pour ëllëg di leen génnee ba li ciy xew quand même euh, je dois le faire en tant que ministre de la jeunesse ku ci nekk nous am le droit am opinion mais na bàyyi ba élection jot mu exprimer opinion am boobu su fekkee dafa content ci président mu exprimer ko en le sanctionnant positivement su fekkee ne kontaanul aussi am na droit euh, exprimer ko en votant contre le président wala contre le régime mais génn di taal li ñu mel ni rek lay andi te du am benn njëriñ finalement ci réew mi parce que ñenn ñàkk seen bakkan quand même réew mi moo perte parce que ñooñu mënoon nañ dem ba jëriñ Sénégal loo xam ne vraiment kenn mësu ko jëriñ waaw maintenant nag euh, li nga xam ne moom moo xew aussi euh, nit ñi génn nañu manifester nañu te ñu si bëri amuñu si droit wax naa ko sànq ndax simplement li xew c'est une affaire privée loolu personne personne ne nous empêchera ne nous empêchera de le dire et de le marteler affaire bi 2021 la xew ba léegi nii mais mosul am problème état ak kenn mais ñaari nit ñoo jote donc ñaari nit ñu jote nag loolu du ne guleet Sénégal chaque jour ay nit ñu ngi tuumaal ay nit chaque jour ay nit ñu ngi sàcc ay nit chaque jour aussi du ñàkk ay nit ñu ngi sàkku ay nit te yoon moo ko war a leeral li ciy bees nag mooy nga nekk politicien bugg gëmloo sénégalais yi que ne complot moom moo la jàpp ba tax tey ngay wax loo xam ne xale yi mooy tax ñu génn loolu lañ ñu war a condamné loolu la war a ñaawlu loolu la ñu war a rafetlu te loolu on doit avoir la dignité de le dire de manière claire nette précise man loolu suma opinion loolu laay wax. mais bu ñëwee ci fitna bi li muy ay manifestants. dem ci leader di ko lan moo waral ñu leen di attaqué ba. fitna bi loolu andiwu fitna bi lu andi. wax rek day tax parce que vraiment il faut qu'on se dise la vérité li andi mooy benn sénégalais la ñu yoon moom mu ne c'est comme benn wala ne wala dara police woo mu ne moom du génn këram. ñu ne jotul waaw xaaral rek damay expliquer yaa ngi dégg. loolu moo fi am c'est comme benn booy bu nekk ci koñ bi sàcc benn affaire jàmbur ndax moo ko sàcc wala sàcc ñu wóoruñu ñu woo ko police. mu ne moom du wuy ci non non non defal nànk rek non non man ay fee man boo non attends attends non non non bàyyi ma rek man ay fee man comparé wu ma ay personne yéen su leen neexee nag mun ngeen comparer ay personne man nekkuma ci comparaison entre des personnes man damay def comparaison entre des faits fait de viol chaque jour ñu ngi koy atte tribunal chaque jour suñu ay mbokk suñu ay dëkkandoo suñu ay xame ak suñu ay xarit ñu ngi leen di accuser suñu mel noonu te dañuy sangu ba rafet dem police ñu euh, euh, euh, enquête leen parfois ñu bàyyi leen foofu parfois ñu yóbbu leen tribunal ñu dem wuy ci loolu moo fi nekk léegi nag Sénégal dafa am kenn koo xam dafa taxaw ñu ne ko convoqué ne mën du wuy ci loolu mooy andi affaire bi ah sincèrement su neen du wuy ci nag rassemblement en buntu këram mais naturellement la police les forces de défense et de sécurité mais dañu am droit ak obligation xool foofu lu muy lëndët ak nu mu demee loolu am nañ ci droit il faut qu'on se dise la vérité aussi dëgg nag neexul a wax ci dëgg bi dëkk bi temps yi soo waxee rek ñu ne politique ngay waxul mais c'est ça la vérité c'est ça l'histoire kenn mënu histoire histoire bu ñuy bind suba mooy am na benn nit bu ñu accuser viol yóbbu ko ba war ko juger mu ne moom du wuyu ji dem toog

ambition boobu lan moo ko gën a rëy mais dafay dem wuy ji Ousmane Sonko ku koy wax dëgg te yàlla rek tax da koy wax dëgg da nga koy ne da mën nga wuy ji réew moo xam ne ni day def lu ko neex et tout à l'heure da nga wax ne lu ko neex man dama la dama la jox benn benn affaire bu ndaw na fii ne moom du wuy ji ñaata sénégalais yooyu ne ñoom dañuy àtte dëgg journaliste yi condamné ay propos nit ñoom ñoo taxaw condamné li mu def loolu il faut def bilan bi combien sont-ils yoo xam ne dañoo génn na ñoom politique ñu faralu ñu Macky nit ñoo génn taxaw ne li ma war ko wax te tey pourtant seen plateau bi su fi jël ne dama koy jëlee su wuyu jiw loolu danaa woon ay booy ñëpp jël ko def ko histoire ne Pape Malick li mu wax voilà léegi est-ce que moom tamit est-ce que moom sañ-sañam la Fatou Abdou Ndiaye waxal ci télé bi ne Pape Malick am wax ci télé bi ñëpp dégg ne voilà non non non bëggoon naa yow waa mais déglu ma bëggoon naa quand même may toog sama kër dégg ñuy wax ci man léeg-léeg dégg naa leen ci ay émission ngeen taxaw ba dugg sama affaire ñu jóguñu taxaw journaliste yu mel ni yéen ak ñëpp ñuy àtte dëgg taxaw wax ne ak lu waa ji moom moo ñu waxoon ne il avait envie d'en finir avec ce procès moom moo ñu ko waxoon xaaral loolu man yeneen fee la yoo xam ne man dama lay wax rek principe yi laa lay wax ñaata lañ ñun pouvoir nag ndeysaan comme que ñun ñoo ñaaw yaay comme ni ko xale yi di waxee suñu fi génnoon léegi wax fi benn dëkk ko wax normal et cetera donc mm. vous me laissez placer vous refusez quand même complot dans cette affaire euh, que ne mbir mi c'est une affaire entre deux privés et loolu aujourd'hui mi débat mais wax qui ont été cités quand même le dossier bi ah, les pontes du régime et jusqu'à présent euh, amuñu information que ne déglu nañu que wala avons nañu leen ci dossier est-ce que joxul quand même aujourd'hui euh, coloration politique mais la meilleure manière de prouver et de montrer à tout le monde que complot

Mais c'est ça la réalité hmm? Si point boobu li ma ci wax c'est très clair moi je le dis avec force je le dis sans hésiter je le dis sans autant chercher de midi à 14 heures Que kuy wax la te waxal dëgg da nga war a wax Ousmane Sonko les yeux dans les yeux Ça va, on t'aime bëgg nañ la bu baax tu as envie de nous diriger tu veux nous diriger dans un an le minimum que tu puisses faire pour éviter suba soo nekkee président pour éviter suba qui violé ñu woo ko mu ne wuy ji parce que juri présidence Ousmane Sonko pour éviter ku détourner suba xaalis ñu ne ko da ngay génn sa waa koñ ba ne dafa war a joxe un bon exemple waruñu servir une jurisprudence boo xam ne ñun bëgguñu ko donc dafa am obligation dem wuy ji léegi nag moo def wala moo deful damay marteler encore une fois que wóoruñu xawmuñu fekkeewuñu mais on a envie quand même ko ñu wax ñu lu leer ci affaire bi su ko defee ñëpp jàll su ko defee tey ala au lieu nga may invité fii ñuy wax ci wax yoo xam ne vraiment amul place ci débat public wala débat politique. et vous avez euh, yéen ci boobu. mais au moins ñu mën a pas ramené le débat à ce que muy confirmer non vous me laissez à ce que muy confirmer aujourd'hui cette thèse du du complot parce que yéen a koy balayer d'un revers de main. mais andi wuñu ko et aussi solol ko benen mbubb bu ne moom moo fa dem lepp lu ñu koy dafa dafa war dem répondre. man dama la né andi wuñu ko fi.